monsieur le ministre concernant le crédit hôtelier dama gis ci rapport bi nga ne douze entreprise hôtelières et touristiques ngeen ci euh, financé may laaj lu tax gisuma ci benn boo xamante ne ni c'est dans euh, c'est sur la petite côte te Mbour euh, di secteur boo am so di di département bu am solo ci wàllu tourisme monsieur le ministre Mbodiène qui est dans la commune de Nguéniène ak Pointe Sarène bi nekk dans la commune de Malicounda c'est des nouveaux sites touristiques yoo xam ne yéen yéen a ko Euh, fas yéene liggéey avec la sab ko monsieur le ministre may laaj travaux yi fan ngeen ci toll ak euh, kañ a ngeen fas yéene jàpp ne di ngeen ko livrer la population de la Petite cote monsieur le ministre ma bëggoon ñu renforcer bu baax sa c'est une question bu may poser au ministre de des finances et des et budget pour ñu renforcer davantage la ko parce que moo yor liggéey bi te liggéey bi mu tàmbali di ko def liggéey bu am solo la te département de Mbour da koy xaar ndax monsieur le ministre boo xoolee dañ daan wax club àjjana tey jii euh, zone boobu noonu yëpp euh, chômage bi dafa bari te jeunes yi di xaar li nga xam ne mooy site yooyu pour man ci trouver waat euh, ay ay ay ay emploi may laaj rek monsieur le ministre liggéey yi fan la ci toll wax naa ko ba pare sax mais ñu renforcer ko pour que liggéey bi gën a gaaw foofu lay dugg nuyu la directeur du ko nuyu suma frère Alioune Gningue de même comment ma sœur euh, Ndeye Awa Mbodj ak Bamba Mbow monsieur le ministre érosion côtière xam nañ ne yoroo environnement mais érosion côtière dafa laal li nga xam ne mooy hôtel yi te vous vous vous avez le secteur du tourisme donc en collaboration avec le ministre de l'environnement monsieur le ministre lan ngeen fas yéene def pour xeex li nga xam ne mooy érosion côtière bi parce que gis nañ sur la petite côte hôtel yu bari dañu tëj monsieur le ministre monsieur le ministre auberge yi ak kër yi nga xam ne dañ koy jël def ko ay résidence privée mu ngi rey tourisme bi aussi sur la petite côte loolu tamit war ngeen a ut ay solution pour loolu mën a dakk parce que dañ koy def dans la clandestine euh, monsieur le ministre AIDB dañu gis ay groupe de jeunes yoo xam ne dañu nekk dans le département bëgg dugg ci secteur bi du transport bi mais problème bi ñuy am mooy mënuñu intégrer AIDB te yaakaar naa ne aussi AIDB retombeem ñun ñu dëkk ci département bi war nañ ko mën a gis parce que nous avons des jeunes qui ambitionnent vraiment monsieur le ministre d'investir ci euh, secteur boobu ci wàllu taxi ak euh, yu mel noonu monsieur le ministre li ci des dinaa ko tënk ci benn kayit envoyé la ko en tout cas vous avez tout mais encouragement maa ngi lay ñaanal ak say collaborateur liggéey bi ngeen tàmbali ngeen àggali ko pour le rayonnement du tourisme sénégalais je vous remercie monsieur le président